doq yi ñi nga xam ne bu nit xewxaan rey ñaare ñoom la ko yonent bi di reyloo ñu laa ne muhammadun muhammad ibnu maslamata zubayrun ak zubayru ibnul hawaam asimun ak asim ibnu saabitin wa ali ak ali ibnu abi talibin al miqdaadu ak miqdaad ibnu amrin mu ne ñii de durabun way dóor lañ alaa naa ka doqi ñi xëy waray lil xusami ñaa sang bu bari xiiw bi ñii de nit xëy waray ñu ko ñu rey ko ci seen loxo li def nañ ko kasa naka noonu ibnu sufyaana dégg nga daxaak ibnu moom itam bokk na ci di hmm. qaysun qaysu bnu saadin hmm. qaimun aji taxaw la hmm. jaladun aji dëgër la aji taxaw la maqaama di surtatin taxawaay borom surta fafat na nga mokkal wala taxim te jaxase bul wax ci lu wóoru bnu saadin yonent bi na ko taxawal fi taxawal surti borom yooyu borom takk der yooyu dégg nga nga xam ne jaar nañ ci wattu ko xurraatu hoo way wattum ibnu muhasin mooy sant ibnu muhasin ci ñi ko doon wattu keroog badar ci la bokkoon bibni maslamatin ak muhammad ibnu maslama wa xaalidin xëy na xaalid ibnul walid la wa abi bakrin ak abu safiyihim kadaaji sell seen hmm. abu bakrin hmm. hmm. ak muxira ibnu sobata wabnu abi masadin wa subayrun ak subayr ibnul hawam maha bilalin ànd bilal ibnu homam wala ibnu rabah bi habbatin ànd ak habbat ibnu bisrin kasaaka naka ni humiya la wa toppee ko mu ne ñii daan nañ ko gàdde léeg-léeg kasaaka naka noonu sagwaan sagwaan ibnu hamrin xaj na lool la jaar na ci ñi méngoo hirasatun nabi saadun ak saadun na abi waqaasin fekk yonent bi jamonoy wooteem bu génnaan dafa am ñu koy wattu maanaam eh, eh, ci dañ ko daan wattu mm-hmm. waaye kara ba borom bi waxee wallahu yasimuka minan naasi mm-hmm. wallahu yasimuka minan naasi mm-hmm. ñu ko daan wattu kara lañ ko baax wattu ndax yasmatullahi doy na ah ko borom bi waxee wallahu yasimuka minan naasi kara la gëj a soxla kenn de ko wattu ndeg bañ noon jaare jaare feneen innahum naka hurrasu nabi tarako banañ xirasaho wattum is ataahu ba ko dikkalee allahu yàlla minasa min ci musal ba ko yàlla waxee nag wala yasimuka minan naas boobu la gëj am soxla ci ay nit ñi di ko gànge da dox digganteem ak ali noonu mu ragal dégg nga wa haasimun hmm. haasim kuñ naan haasim hmm. xaj na ibnu saabitin la hmm. wa kadaaka naka noon ibnu rawaxati abdullahi ibnu rawaxa kook de yax doo daan na màng gëlëm yonent bi fil asfaari ci tukki jasaaw yàlla na fay ko allahu yàlla dul karami kay borom ak tedd nga ku mel ni abdullahi ibnu rawaxata ak haasim daan nañ def bu yonent bi de tukki hmm. ñii màng ay gëléemam mooy jiital gëléem yi hmm. wala nga buumu gëléem yi jiitu hmm. jiital gëléem yi dawey di sawarloo gëléem yi dawey di daan na màng arrijaala góor ñi bara un ku tudd bara ibnu malikin ki daan màngal góor ñi buñ newee di tukki jiital gëléem yi di leen sawarloo mu ngi tuddoon Baraa ibnu Malikin summa an jasatun topp an jasa haadil xawaariiri moo daa ji màngal mooy ay butéel niswaani nabi ñii soxna yonent bi alkarami yonent ba daa ji tedd an moo daan mang gëlëm yi nga xam ne jigéeni yonent bi ci lañ daan war dafa doon ku mën a wéy nag bu wéyee wéy day jeexital lool ci gëlëm yi benn bi su muy mang gëlëm yi yonent bi ne ko rifqan bil xawaariiri mooy defal ndànk mooy jëmm jigéen daanaka butéel la amuñu solo di leen ndànk man haalil xawaariiri rifqan bil xawaariiri bu yonent bi waxoon ko moo tax man haalil xawaariiri dégg nga wa saabitun saabit ibnu xaytin wa xatibul Mustapha mooy ki daan xutba ci jamono yonent bi wa xatibul xurri tey xatibu awoy rafet yi ay bati yi ñay denc waaye sekkare yonent bi ansaari yi ñi dey ndimbalam alxasan bi ci moom ñi nga xam ne yonent bi daan na leen xutbaloo ci biir mbooloo yi ñu ne alxutaba yi mm-hmm. bokk na ca saabitum nu xëyitin daanaka moo doon xatibul ansaar mm-hmm. wa saabitun saabit ibnu xëyitin fa xatibul Mustapha mooy xatibu yonent bi mm-hmm. wa xatibul xurri te aji xutbaay way rafet yi ay bët yi ñe dencukaay sekkareem ansaar yi ñe day ndimbalam alaasoo mi ñu day xaar ñi nga xam ne xatte sëriñ dikk na ñu wax ci dara ci jamono yonent bi mais dem nañ fatwa nga mm. ah, muftoowu mm. a ah, mufti yi nga bind nga muftoowu ana muftoowu la ah, mm. muftada la ñi ko defal fatwa moom yonent bi wala mufti yi ki ko defal fatwa salmaanu mooy salmaan alfarisi def na faris ci jamono def na fatwa ci jamono yonent bi wax ci diina waxee ci xam-xam abdullahi ak abdullah ibnu mas'udin summa abu darda topp abu darda saydun ak sayd ibnu samitin muhaadun ak muhaad ibnu jabalin wa ibnu awfihim ak seen abdurahman ibnu awfin ma ak hudayfatun hudayfatun ibnu yamani wa kazaka naka noonu ammar ibnu yasirin ñu ñëpp ñu ngi def fatwa def nañ fatwa jamono yonent bi al xulafa al xulafa wal arbaa mm-hmm. abu bakrin omar osman ali mm-hmm. wala asari ak abu musa al asari mm-hmm. moom itam mu ngi bokk ci ñi def fatwa jamono yonent bi wax dëgg limaa leen ubayyan ubayy ubayyum nu kaabin mooy itam min mufti nabi soo ko defee tal tahim da nga dajeeg nit ñi ñi nga xam ne ñoom la daan nodduloo wala mu assinoohu ñi ko daan noddal ñim daan nodduloo mm-hmm. bilalun mooy bilal mm-hmm. bilal ibnul hamama wala bilal ibnu abi rabah mawla abi bakrin as-siddiq mm-hmm. wa zayat ak zayat wa saadun ak saad ibnu hais summa awsun topp awsu abu mahdura wa abdullah ak abdullah ibnu ibnu ummi maktoom abdullah ibnu ummi maktoom boo xamin koo gumba la moom nag gisutoon sax na ñi nga xam ne bu daan génn ci xare daan na faral da leen mu laa an naa iboona lahu waxtul xuroji ila xasmin wa hajjin humaatul ahli wal harami حويف عثمان عبد الله ثم أبو لبابة وبصير ما أبي رهومي نميلة صاحب سيد السباع أبو لجانة ثم عبد الله ذو القدم محمد سعد محمد عبد الله ثم أبو ذر عليهم رضا الرحمن والروم جنجلوله annaa'ibuuna ñi daan wuutu mm-hmm. lawoo ñahaal yonent bi waxtul xuróoji ci waxtu génn mm-hmm. ilaa xasmin jëm ci xare wa hajjin mm-hmm. xam hitte bu muy doxi lu mel ni xare ji walla haji ñim daan faral de bàttale gannaawam ñi ko wuutu ci waxtu njaboot gi ak bagaas yi mooy xumaatul ahli eh, ñu waxtu ñooñu wal haram yi ak njaboot gi xawayfu mooy ku ñu naan xawayfu dégg nga Xawayfu ibnu Asbata dégg nga ak Osman ibnu Affan Abdullah ak Abdullah ibnu Ummi Maktoum summa Abu Lubaba Abu Lubaba Basir ibnu Abdil Mundir Basirun ak Basir ibnu Abdil Mundir Abu Lubaba ñu ne ñu ne Ibnu Abdil Mundir la ma abi rahi abi abi ruhumin xànd ak kuñ naan abu ruhum mooy kulsoom alxibaar yi dégg nga ak numaylatun kuñ naan numayla dégg nga ak ibnu abdillah bokk ci laytu ak saay ibnu osmaana saydun ak sayd ibnu Sibaon ak Siba ibnu Hutata hmm. Abu Dujana Abu Dujana Simak ibnu Kharasata hmm. summa Abdullahi topp Abdullah Sulqat Abu Salamata Sulqadami hmm. kay borom ak tedd nga Saadun ak Saadu Muhammadun ak Muhammad ibnu Maslamata ak Abdullah ibnu Abdillah ibnu Ubayyin summa Abu Dharrin ñii kum ci mën a doon hmm. jaar na ci yonent bi génn hmm. ne ko nekk ma sama baab hmm. alayhim yàlla nekk ci ñi irda rahmani ngërëmal yàlla warahum ajrun dañu jàng wal asari abu ibnu asidin ak kuy naan hetaas ibnu asidin xaalidun ak xaalid ibnu saadin abu sufyan saxru ibnu harbin suma siyaadun topp siyaad ibnu labid maha muhaadihi mi ànd ak muhaas ibnu jabalin kasaa naka noonu yasiid yasiid ibnu abi sufyan wa bataan ak bataan baasaan ibnu saasaan mm. hum ñoom ñi mm. al umara u ñooy buuri yonent bi mm. ñi nga xam ne yonent bi na leen ci barab kum ci maa doon nekk fa nekk nu dogal mu ne ñii la kum ci maa daa fañ ko farale woon bare bi nga xam ne yonent bi ko jamono xam ñu fa teg ñu nekk fa xamee fa baatab l'islam ñu di leen déggal comme kilifa ñoom la ñoo tuddee umara u nabi bokk abu musa al asari ak hisaab ibnu asidin ak xaalid ibnu saidin abu sufyan sahr ibnu harbin ak ziyaad ibnu labik ak muas ibnu jabal ak yasid ibnu abi sufyan ak basa walla méngale woon na xalaa yamanin yaman sihran goro bu xaani hoo ibnu amin bay tax yonent buy yaman sayidna ali mos na faa jiite xare donc ba ca mm. la ko waxoon na ko demal laa yahdiya bika rajulan xayrun mm. laka min addunia wa ma fiha mm. amma hommaanun daal hommaan fa hamrun kuñ naan hamru hamru bnul haas kaana nekkoon na waaliyaha daaji méngoo ko yonenti moom la méngale woon hammaan ak Yuusuf ci moom xatam juróom ñeenteel ci gàddaay gi Abu Bakr la yonent bi waxoon mu jiite mbiru hajj gi mm-hmm. yore imaara bi doxal mm-hmm. iqaamatul hajj taxawal hajj mm-hmm. fii taseen ci atam juróom-ñeent ci gàddaay gi li fil karami ñaal na borom tedd gi aani alhatiqa rafiqal xaari ay tagg la rek mun fi xamaali yi alal barri kii joxe àlalam ci yonent bi doonu mën ni ci dul benn ñaax wasaanaam lu benn yokkal moo jiite woon haj bi yonent bi ñaar fukki at yi la rangoon boole ko juróomi gëléemi badana na ko bu ñëwee dañ xoolal te su doon ñaar fukki at yi xalla